ni anda ak ñun sa su ne si émission mbeg mi ñi ci dalal tay serigne ibrahima sambu kenn du ko laajte fii si diwaanu touba jankatu khasaay bu mak fa ma sha allah serigne ibrahima ñu bay la nga nuyu mbokku internet yi salam alaykum no ngi siyaare mbolam ko xamanteni ya nga nuyu deg di jital ci siyaare bi cheikh mohammedul muntaha ni ñaan ci serigne touba lim la borom touba mu ko ko bëgge ci barke wakana xaqan di siyaare suñu am ni Modou Mbenda Fall Yaram yàlla na fi yàgg loolu te wér ci doole Cheikh Ibrahima di la siyaare yow mi nga xamante yow laa fekk si tey jii ak mboolem koo xamante ànd na ak moom rek teew fii ñoo ngi siyaare ñëpp jaa ngeen jëf. waaw sëñ Ibrahima macha allah fa tubaarkàlla nuyoo bi am na solo lool mais sëñ Ibrahima ñu bëggoon nga musal ñu si xasida yi rek mbokku téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ni que ni ñu ngi lay bàyyi xel saa su ne rek si émission mbégte لأنه للهدى ونور الجرار قلبي لو في الهتام بالجسم تكرار لأنه للهدى ونور الجرار xalbi loo filita bil jismi takraaru li annahu lil taawano rijaraaru yàllu mu jismi yadaax ban fil jolo siwila ilmin wala amalin wana suxaraaru yàlloo mu jismi ya daax ban fil julo sibila ilmin wala amalin wana suxaraaru ma zala li xayriyat ويا سمو ولسادة دقبر وهو قرار يلوم وفي خار وفي كبل بلسن ربي والمخبوس مبرار قد جسم يا ما القلب يلم من المناخب تزويف وإسرار فاليوم واجت وجهي تائبا أبدا لله توبة من لا أدنى وغفار أدي برمتوا sëñ Ibrahima waa lii la mu doon nag. wallaay di jéem rek te bëgg man ah franchement gars yi kontaan nañ trop. wallaay noo gën bëgg. ah macha allah. jaajëf. na yàlla wéral baat bi. amiin ci doole sëñ Touba nekk mag ñu ñu ràññee fii si diwaanu Touba. amiin barke borom Touba. mais sëñ Ibrahima jàng bi moom air bi neex na ma lool de. wallaay air bi de airu jéem la rek te bëgg man tey ñaan yàlla. est-ce que doo demaat tuuti. yàlla fi. خارن وفي كبل الله بلسن ربي والمخبو سم إبرار يلا مو وفي خارن وفي كبل الله بلسن ربي والمخبو سم خلاق جسمي man xal bu yalumu o min al manaxibi taswi fun wa israaru fal yawma fal yawma fal yawma wa jotu wañi tayban abadalna lillahi tawbata man adna wa xafaaru xafaaru li xfir sunoo bi wafuga kawale bi man alay yalli taraki sawro waaru bi man yo xaatibu ni fi sawri rawdati e baytaani min xawli man bil urfi amaaru barki borom Tuubaa macha allah sëñ Ibrahima heure bi man moom neex na ma franchement wallaay ndeysaan ba mën nga koy tuddee rek incha allah yow ah. bëggal rek waaw ah bëgg naa di wax dëgg yàlla yàlla yàlla yàlla def jàmm mais sëñ Ibrahima jàng moom vraiment neex na lool mhm. mais lu tax nga jikki-jikki rek xam nga métier mi fii bëri na lool nga choisir jàngum xasida ak jamono ji ni mu demee nii xale yi bëgg milier yow tamit nga choisir rek topp xasida yi cheikh touba àlla waa loolu li ko waral mooy jamono daa toll foo xamante ku juddu fekk sa baay doon mécanicien bu fekkee am nga xel dara wala nga am yéene àggale sa yéene baay rek faaw da ngay doon mécanicien ngir bu demee ba mënatut wala boo ko fekkee mënatut nga mën a àggale jooju yéene te yàlla daa dogal ñun bin juddoo ñu fekk sunu baay di jàng fekk sunuy mag du jàng fekk sunuy ndijaay di jàng mën naa ne sama famille bépp ku ci dul jàngkat rek yaa ngi nekk doon ñaankat nga xamante ñu ci bari boo demoon ci ñoom doo ci fekk ak kenn métier jàng xasaayit lan xam jaamu yàlla ñu nit ñu judd gis loolu neex nu te fekk loolu it gën ñu nekk ci te olof nee na lu juddowul ci am tàgg bu naawut jaaxali mbokkam te beneen ba ca desit sunu bàyyi ñun rek la am ak sunuy mag te tey buñ defut li ko gënal rek tas yaakaaram ndax eh, ku ku sa wakat doon wax kat bo juddo doon rek tas nga sa yaakaari bay loolu yalla dogal. e sëñ Ibrahima lam mo la sim si njàng ak li tax mu doon sa préféré. wa li tax mu doon sa préféré moy comme batay lima wax rek ndax eh, bima ñëwé fekk sam papa doon jàngkat ma xol ni. jang moo war parce que mom la sama bay di def benen ba ca desit Abdou Aziz mi nga xamanteni moy sama mag ñu bokku lepp ma ci dugal ma ci affaire yi jàng ma topp ci ginnaam di jàng ba yàlla dogal tey ma man ci as tuuta kus néew nii ba mën a ñëw toog fii di di ko fi def. Mm. Mm-hmm. damay gis ni jàngkat yi boo leen bëggee jot dañuy nekk ñoo xam te ñu jafe la ñuy doon. Mm-hmm. ndax yow bokk nga ci genre jàngkat yooyu wala yow ku la bëgg jot dina la mën a jot urgent. waa loolu yàlla dogal na ko man bu may nelaw sax sama téléphone du ma ko def ne pas duma ko fay mais nag dama koy def silencieux parce que bëgguma di dallu ñu koy yàq mais bu ma yeewoo. kuma ma mën fekk nga wama ci àddina dina la woowaat parce que man euh, mbindum jambur rek lay netali nit nak bo ne bay netali mbindum jambur woro ci acc sa kaman ti xamante pas fa parce que ki lay ngir bëgg nga waxal ko ko man nako defal bopum ndax bu tejo defal ko bopum ba mu xol ñu ko defal te ñiko man bari na lol motax tax jafé luñ suñu bop ci dara ndax sëriñ bi lañ bëgg te sëñ touba mi nga xamante mom lañ am bay def lu jafé lu dara ci ñun motax mënu ñoo jafé suñu bop ci dara àndal yow bokkoo si ñi nga xamante ni jànkat yi nga xam ni dañuy aju du xugaliku non man moom yooyu bokkul ma ci man ab Baay fa laa neex ma rijaalu loxo ma jaalu rek lay dund man ah. waaw kon la bëgg jot mën na laa jot si anam bu yomb incha allahu taala ku ma bëgg a jot samay xarit yi may àndal sax koo ci oo ci ñoom téléphone boo ma bëggee jot danga may jot waxuma nga woo ma ñoom rek boo leen woowee sax buñ ma oowee ne ma jugal ma jug parce que ñoom rek am nañ cër boobu ci man waxantumaak nag yow nga oowal ma sa nga oowal ma sa bopp man mi nday mbilig Hmm. baax na tam jërëjëf nga hmm. xaari bi kon émission bi am na solo lool yéen ñi ànd ak ñun saa su ne rek si émission mbégte hmm. ñu dalaloon sëñ Ibrahima Samb waaw macha yéen ñi nga xam te ne nag yéen a bëggum fajum aajo dawaawul badani di fajum cosaan baax lool képp ki nga xam te ne rek yittewoo nga ci nga woote ci numéro téléphone bi mi ngi si suufu écran bi ok kon nag ñu leen di jaajëfal bu baax si beneen émission incha allah di bàyyi sëñ xaadim rek mu tàggatoo ak mbokk yi. borom Tuubaa doo nit jinne te doo malaayika te doo kaayinaati laay wuu te nga ak Musaa Ka. maami Sëriñ Mbàkke soxna looy borom tayif. sira xujakum ba aale loo ma ca ndaam borom sangub sëriñ xaadimi génne yaay fan maay baayam sangub sëriñ xaadimi si xiyaadama gay muy maamam waaye sëriñ mbàkke soxna loola doy loo xaadimey xaadimey sira xuja kumba gayndeel xuja kumba yaro xuja kumba ak sooy xuja kumba alelo wooy ma ca ndaam borom tayif borom tayif yore Sénégal ku bañ sëriñ Mbàkke soxna loo yàlla du la baal borom Tuuba doo nit te doo te doo malaayika te doo kay naati laay wuute nga

gaaya noore xare na ba dara xare na Ndakaaru ba jàll ba fale indi boole gele jibbi si na Tuuba ku bëgg Serigne Saliou defal nii nu magal borom xel gom njaaga dax nonon sin mama xare na baafale xare na ndimbal wale ne il buuri gele ñibbi si na Tuuba ane ni mal walewa ya mama da xongonon sin bamba xare ya mama ya mama ya mama kaña donorer ya mama ya mama ya mama da xongonon ye masala sin ibrahima Euh, mais sëñ Ibrahima bëggoon xam ndax yow am nga soxna wala amugoo soxna. man nag feneen nii moom waaw comme comme noonu rek nañ nañ nañ nañ nañ bàyyi noonu rek. non leeralal mbokk yi rek non euh, euh, xam na bu baax baax rek. kon aw ma rek. ah xam nga fi ne damay bañ ni aw bu ko hmm. defee ñu gars yi di ma sonal ak yooyu ngir bëgg ma fas ak yooyu dafa ne. daateel ndax man xale laa. mais yaa ngi bëgg xale yi jàngkat yi la ñuy wax de. non non man moom lenn rek laa bëgg. mooy que jàng xasaay. Mhm. jaamu yàlla. Mm. yeneen yi ci des yëpp doy na sëkk ak barke. Ah. yooyu ci des moo xam naa dama koy bàyyi ak ay ñoom sëñ jaxatal gaa yooyu noonu ñoom moom xam naa ci yooyu la ñuy dox. Ah, soxna yi si lañ bokk nag. incha allah moom kay xanaa nu def ñaan rek am nañ yéene euh, def ko moom comme ni ko ñëpp defee incha allah. Mm. Mhm. mais des fois doo nekk si base di jàng am lu la arrivé comme yenn jàngkat yi. non ñun nag yàlla dogal na fu ñuy dem rek dan fa yóbbu sëñ bi mm-hmm. te sëñ Tuubaa ko ànd ak moom waroo ragal dara waroo tiit dara beneen ba ca desit mm-hmm. tapi fépp fu nuy demit day fekk noonu lu nu war a def def nañ ko ba pare ngir xasida yi ñu jëm ci moom normal ko ba dara mën nañu faa bañ a fekk am na yoo xamante ne mënut a ñàkk ci baas waaye day fekk lu jóge feneen di ñëw la te loolu bu ñëwee ndimbalal seigne Touba rek lani am bayu ci bari dañ ci dañu ci dimbali ban ban man ci genn bu baax. Mm. ah man kay ñu daal def ñaan kii moom macha allah. mohammed Mouhamed. Mm-hmm. yàlla na la yalla def magum l'islam amin mag mu am ñam. Mm-hmm. njàngum dem meeg njàngum tay moom am différence wa waa dem mi ak njàngum tay mi amna différence. Mm-hmm. waaye. loolu da cee da cee am solo parce que li tax mooy fi ne ba fi bàyyi mut sàmb di nekk di jàng yàlla na ko saa borom defal jàmm te yërëm ko te jéggal ko ay bàkkaaram yu njëkk yu mujj ci doole yi sëñ Tuubaa euh, booba njàng mi métti woon na loolu ndax euh, imagine toi nga teg am njàng bolok ko ba jeex tàkk ba wàccaat te doon noyyi loolu ñun gone yi di jàng bu dee am nañu ko ci man bëriwut te man bokk mënuma ko ta ba Fallou ñewé da wëlbeuti lolu indi wat ko muy muy muy lu yomb bañu bari man ko roy alaaji Seydou Mbaye momit yal nako seigne ko defal jamm defal wëlbeuti wat ko ba ñun goni yépp man cey jang, ta ta lolu am solo parce que njàngum seigne touba mi da wara yaatu ta buñ ko yolomalul toon noonu ba yolom ñun ñi ñepp man nan ko bañam man ba tax mu xawa demene ne ne waaye lu mu ci a nak nag bi rek ak xeside yi rek ñun waaw kay. mais sëñ Ibrahima sa relation ak yenn jàngkat yi nan la demee foofu. waaw jàngkat yi moom ñëpp samay xarit lan ñi ci ëpp samay baay lan. Mhm. bu bu fekkente ne si ñi ma ci féete baay ñëpp samay xarit lan ku ma ci gis dinaa la def ni baay. Mhm. dinaa la jox cërub baay. Mhm. ba nga xam ni yow mii sama baay nga. ñi nga xamante ñoo ciy samay nawle may ànd ak ñoom it ku ma ci dajeel. li ma war a sekk ak yow ak li ma war a def ak yow dinaa ko def ak yow. ñu doon ay xarit doon ay euh, doon ay lépp daal ndax ñoom ñëpp sax ñu ci bari man ak ñoom ñooy bokk di toog di waxtaan di nekkandoo ba yenn heure yi te te te loolu ñoom ñëpp seenu mbaax la ak seenu yaatu maa ngi fay jaare di leen siyaare waale ñoom ñëpp di jiital ci siyaar ba nag sama mag sama xarit sama kilifa nga xamante tey nu ma mel rek yàlla ak jëmm a tax Abdou Aziz yàlla na ko yàlla defal jàmm. yow kan mooy sa jàngkat préféré avant ngay dugg ci métier mi. man mhm. man awma jàngkat. mo jankat dedet kon kan ngay roy man kuy wax lu neex rek man fene buma togon tay ji Baye Cheikh ndjay mi ma andal ma deg mo wax lu neex mhm. mu leer mané ne ko waxé dina neex ñi nga xamante ñom la jangal dama koy jël wax ko parce que ñom lu leen neex lan bëgg ba tax lu woma kon kuma gis ngay wax rek lu mu neex lu mu tuti tuuti dinaa ko jël wax ko ngir ñi nga ñoma bëgg ak di diglu man cey jëlé lu leen neex ah, jaana na dëgg mhm. ah ma leen di rek badani bi di fajum cosaan Mhm. képp ku si yittewoo rek numéro bi mi ngi si suufu écran bi nga woote macha allah ku bëgg sa aaju gaaw faju rek nga woote si contact yi si suuf kon sëñ Ibrahima ñu ngi lay jox beneen dig daje incha allah si émission mbégte mi. ñoo ngi nuyu nag mbokku internet yëpp ak mbokku téléspectateur ñi nga xamante ni bàyyi nañ seen i yitte. di ñu topp fii si DSTV ñu nekk sëñ Ibrahima Samb. fatubaarakàlla macha allah ñu jox beneen dig daje rek incha allah. jaajëf. ok sëñ xaalim nag nga may ñu xasida yi ibrahima nga may ñu xasida yi rek allah ki may way mooy borom xel kom njaaga dom day ki baayam ba ba mu ku saa saaliwook déglu leen yow la nii damoo may sa bigi kumba Fall lamp Fall babil muridina Cheikh Ibrahima Fall yow la sin xaadim Cheikh man sama waay la si ma moon sa baay soxna maam bu soy sa yaay kii garmi ñaari yoon la waaw walaay man sama waay la waaw am bu soy sa yaay kii garmi ñaari yoon la ah! sëñ Fallu Seex si ma mor pel la mooy sa sëñ Xaadimu sëñ Mamot mel la mooy sa baay ku ngeen bokkulul baay ne ko gën baay borom Tuuba mooy seen maam baayu baay jiile baayu maara Mbakke sama waayo baayu sëñ Mamoro baayu sëñ Matar amul morom ku bëgg sëñ Xaadim defal ni nu màggal sëñ Mamor Penda boo leen woowee léegi ay waay ñuy si la léegi léegi kon dëgg dëgg yow lay way di la waxtaane ma ah, saliwoo bayu sëriñ Seex bayu Seex Mustafa bayu Seex Murtala caat way Allah bay saal way wi jombulanda bay saal way wi jombula bo bëgg Serigne Saliou i nanga muñ doy lu yàlla mhm. xam naa fi li fi ne amul feneen a ah! ah, waaw waaw waaw waaw Mbàkke dem nang yow saalo wala neex na ma bi jant bi soowe waaw waaw timis gi tambale di doon xel mi dem ci Sëriñ Saaliw ma fanaane xalaat moom bi mu nekkee xale waaw waaw wallaay ni mu doone ma moom foo ko laajee mu ni bëggul ku dul Sëriñ Saaliw kon di nga jeng yow di jeng yow waaye doo daanoo ku ànd ak sëriñ saaliw bege. lay bége kon saalo saalo ay saalo salmake xel kom njaaga dem na masala sëñ ibrahima kontaanati nañ ndax heure boo ñëwee tamit nii rek ngay dikkee ak ñun kon nag ñu leen ñu dox uh, ba dig beneen dig daje incha si émission mbekk mi mhm. maa ngi siyaare Dieng Saala TV bu baax a baax ak njaxat macha allah ama seen fay di sant sama yaay sant sama papa mhm. di sant sama grand frère Cheikh Mbacke Bey di sant Khadim Bey macha di sant sama mag yi Ndey Bey nogoy beey amu seen fay di sant sama jabar mag ji di maam jaara njaay nit ku baax nit ku woyof mhm. masha di sant fan njaay waat di mhm. sant sama meilleur ami njang fay wallaay ndeysaan dégg sama yaay masha allah ñoo ma teete ba ma yegsi fii tey ba man sax man sax ci sa biir cant mhm. fa laay man tamit santaale mboolem koo xamante yaa ngi def ci man lu baax ak di ko jëf ci man ñi ma xam ñëpp mënuma leen lim wala su ma limee duma matal di siyaare sëñ jiili mbàkke ak sëñ maara mbàkke mii nga xamante ñoom ñooy samay xarit daanaka lu bari boo may gis ci ñoom nga may gis ñu bari buñ may wër sax dañ naan den dem kër sëñ xaadim wala kër sëñ Fallou Seex ñii samay xarit di ma conseillé ci lu baax fu mu toll di ak man bi may ñëw fii ay sëtti sëñ Tuubaa lan déranger leen yombut waaye danoo bàyyi lu ñu jàppoon ak man ak Baye Cheikh Ndiaye mii nga xamante ma ànd ak moom saayibul azrar nga xamante moom jamono yi ñu toll xat na lool ndax ñi ko yittewoo ak di ko ñaanloo ak bëgg ko gis di siyaare bu baax sama mag Abdou Aziz Sam mi ma amul kudul moom nga xamante lu ne ci man moo ko def ci man di ko ñaanal jàmm di ñaan li bëgg ci xasida yi moo ko xam yàlla na ko borom defal ak njaxat mi nga xamante nag moo tax ma ñëw fi moom du ma wax ci moom ndax sama manager la bu ma waxee rek du baax ndax ku ne xam na ni moom moom lu ne ci ñun lu ci bari moo ko ci def ndax mooy suñu manager lu nu def moo nu ko def loo lu nu wax moo nu ko wax loo bu nu waxee lu ëppit nag na ngeen xam ni moo ko wax bu nu ko defeet ngeen xam ni lépp moom la yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm jaajëf kon ñu tàggatoo waale foofu rek ba beneen yoon yàlla yàlla defal ñëpp jàmm jaajëf jërëjëf